Euh, samay xarit ni ma màggaloon ñu créer ben association bu tudd EPG ensemble pour Guédiawaye dañoo jóg pour liggéey suñ fi nga xamanteni ni mom mo bercer bercé suñu enfance bercer suñu suñu mo bercer aussi suñu adolescence tay suñu nekkee ay mak yu amal njëriñ société bi en parenthèse je crois que Guédiawaye lu ci joué def ci beuri trop trop trop donc dañoo bëgg delloo ñukël euh, la ville de Guédiawaye pour def lan pour organiser ben leul organiser activité yu bëri yo xamanteni leul bi si la bok leul bi nak moy suñu première activité waaw dañu daan nañu gis nag ay lël yi fi am mais lël yi dafay nekk xarafal xale yi rek bàyyi leen ñibbi waaye ñun dañoo bëgg xarafal xale yi téye leen fi pendant fukki fan yoo xamante ni dañ leen di jàngal dañuy cultiver seen xam-xam dinañ leen dinañ leen dina am activité yoo xamante ne nii dina da leen di da leen di ñaax pour ñu nekk ëllëg ay mag mag yu am yu amal njëriñ société bi waaw loolu moo tax daal ñu organiser lël bi nga xamante ne nii mi ngi am fii si maison inclusive Njaareem li Limaam Laay ci digg Géejawaay ci xolu géejawaay activités yi bëri na activités yi bëri na moo sama xarit activité yi bëri na trop xam nga xale yi dañoo jong du ñu mun a def sport parce que aussi am na activité physique yoo xamante ne nii xale yi dañoo jong duñ ko mën a def mais dañu prévoir activité sportive yoo xamante ne nii dañ ko yemale ci dox dox tàggat yaram dinañ am ay balade ànd xale yi génn wër géejawaay génn wër quartier bi génn ñu xamal leen géejawaay xamal leen seen environnement xamal leen géej mooy lan xamal leen les dangers de la plage xamal leen quels sont les quartiers qui sont à géejawaay géejawaay nan la formé woo nañ leen fi wool ay nit yoo xamante aussi dañoo nekk géejawaay nekk ay léppkat ñu ñëw wax leen histoire géejawaay waaye wax leen aussi seen histoire maam yi pour que xale yi nekk xam d'abord fu fu ñu jóge pour mun a dem fu ñu jóge xalé ñi ñu si ci bëri aussi nek nañ ay xalé yo xam ne dañoo ñu ngi jàng wala ñi ngi tek seen benn tànk ci biir école muy muy arabe muy français muy aussi euh, catholique parce que aussi amuñu ay xalé julli kese am nañu fi ñaari xale yoo xale yoo xamante ni c'est c'est des c'est des chrétiens bëgg nañu aussi dem ci jàngu bi bëgg nañu aussi dem ci jàkka yi woo imam woo un prêtre mu ñëw ñaaxaat xale si seen diine waxtaan ak ñoom sul rël bu ñu war a am diggante ñoom ak seen waajur ñoom ay xale lañu waaye ñoom ak seen ak seen ak seen ak ak société bi leen wër activités yi daal entre autres mu ngi noonu am na bu ci bu ci activité faar nag boo xamante ni vraiment dinañ ci xar suñu tànk tubéy bien vrai que du ñu néewal yeneen yi mooy kasak ñëpp xam nañ ne julli moom fu ñu nekk rek surtout suñu xawee takku tuuti rek dañuy def benn kasak dinañu organiser kasak bu rëy incha allah samedi bii di ñëw tey le premier jour bi mais fii ak samedi prochain

suñu xale yo yu jongu dina xawa metti trop trop trop mais dañ def suñu lay katan ba lépp lo xamanteni warna suñu diggante ak xale yi warna aussi suñu diggante ak société bi ak suñu diggante ak EPG mu organiser leul bi ñu def ko ba mu mat sëkk sëkk sëkk inshallah rabbi ñu ngi ñu ngi tàllal laxo képp ko xamanteni ni mak nga xale nga nga ñaanal ñu ñu passé vraiment fukki fan yo xamanteni fukki fan yu yu mucc ayib la inshallah valeur effectivement wax naa ko sank ci français néna la ñun géejawaay man man ñun fi lañu juddoo fi lañu màggee fi lañu yaroo géejawaay da ngay dëkk géejawaay nga dëkk Las Palmas wala golf mais nga am xarit bu dëkk njaareem wala marché bu bees doo am benn problème fa ngay jóge dox ba foofu mais gis nañ ne xaw nañ ko perte dafa mel comme individualisme géejawaay social living moo fi amoon maanaam bokk lépp loo am da nga koy bokk ak nit mais ñu ngi ñu ngi seetlu daal ne waaw loolu mu ngi mu ngi mu ngi xaw deñ tuuti tuuti loolu moo tax ñu organiser lël bi xalé yi nek fi pendant 10 jours ensemble ñu xamal leen seen bopp xamal leen lan moy la vie communautaire manam dund bo xam dang koy bokk ak seeni morom ngay bañ di gañ kenn ci wax ci jëf mais aussi kenn bañ la di la gaañ aussi ci wax ak ci jëf te loolu c'est à travers ay activités yo xamante ni ay foo la kaf ré ay sétane ay ay ay ay ay film ay léeb ay activités yo xam ne da ngay dem rencontre ay nit moi, moi, qui moi, tax affaire bi euh,